والشفاء في التوصل الى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حمدا لمنزل الدناء والداء ومنزل الشفاء والداء كم قلبك؟ كم قلبك؟ instant dañuy woote waaw ñu ci yem sax dañ naan ma defal leen ab vidéo bu ñu dégg daal da leen di xaw a gis la waaw suñu la neex benn philosophie la ñu am ñu ko daan wax daayira lu jamono yi nga xam ne daje yomboon na ñu nekk ay médecin wala wala ñu nekk di jaay café sax liggéey Sëñ Tuubaa lii ñu nekk nii lenn rek lañ ko def muy jumtukaay bu ñu liggéey Sëñ Tuubaa wutuñu ci maanaam daraja wala am ci loo xam ne dañ koy jaay nit ñi Sëñ Tuubaa rek lañ ci bëgg a liggéey ba tax na nag sëriñ bi ñoo ngi sàpp nga ñaanal mbokki daal bi yëpp ku nekk la muy mébét am na si ñoo xam ne bëgg nañu jàpp si dëgër loo xam ne dana leen permettre lu mën a eggali seen formation médecins yi tey bëgg nañ spécialisé wu yi bëgg nañ def ay DS ngir gën a yokk seen xam te loolu yëpp su amee liggéey bi ñuy def fii day gën a jëm ca kanam day gën a ñëw sàkk nga ñaanal mbokki taalibe yëpp ñi nga xam ne teew nañ ak ñi jàppandal mbir yëpp ndax yooyu yëpp buñ ko amee ngir ñu bañ a ñee kenn nga xam ne ku ñëw ci kër Sëriñ Tuubaa koy fekk lépp te suñu borom moom ñu ci suturaal bu baax a baax ndax tey diggante démb ak tey ay firnde yu bari am nañ am nañ ci ay cas yu xaw a yoo xam ne am na ñu doon doon tay dañ leen di référé hôpital la ma wala hôpital ko Fawzeyni ay mo hôpital di jaayante nañ def passif jël leen en charge ba ñu dal ñu orienté leen ci bu ñu jógee fi Touba rek mën dem gis ay spécialistes ay médecins ngir tàmbali seen traitement maa su ma juum am nañ ci lu ëpp ñaar ba ñetti cas kon li may wax rek. yooyu ñi nga xam ne ñoo ngi koy métal bis bu ci jotee rek incha allah ba ndax bëgg nañ dem ba nga xam ne euh, ci biir consultation bi day am spécialité yu bëri day am ophtalmo am cardiologie am euh, pédiatrie am gériatrie euh, am même ay sages-femmes ak yëpp si biir daal dañ ko bëgg te am nañ njort bu rafet ci ne dina ren nag màggal deux mille vingt deux tolloo troisième édition bi suñu borom dogal na ni ñu fi jot a jaar saytu seen yaram ñoo ngi toll ci trois cent quatre vingt personnes tranche d'âge bi ki ci gën a néew ay at boobu cinq mois la am li nga xam ne moo ci gën a féete mag soixante quinze pathologie yi nga xam ne ñoo gën a fréquent tawat yi ci gën a ràññee mooy syndrome grippal grippe nga xam ne daa fan yi ak hypertension artérielle tam ci mag ñi ràññee maanaam seetlu nañ ko fi bu ba? na ci ay euh, diabète yi nga ñoo am ay hyperglycémie yitte bu baax euh, euh, prise en charge bi def ko fii xam ne daal ak lu mel ni paludisme tamit ràññee nañ a baax ak yeneen i xeetu pathologie yeneen xeetu jàngoro bi daal tamit comme niñ ko niñ ko tàmbalee woon daaw nga xam ne bisu màggal bi comme day nekk bis boo xam ne cérémonie bi ci lay am ndax bu ñu xëyee rek dañuy def dépistage dépistage de leen bon glycémie bi yeeg yooyu tolloo xooloon nañ tolloo quatre vingt cinq pour cent tënk rek loolu la ñu ngi sant baax a baax ñaan xam ne ñu ngi koy mébét ngir dëgg borom ñu ngi sàkk nga ñaanal ñu bu baax a baax ndax am nañ ci yéene bu baax a baax gën a yaatu gën gën a jëm ca kanam am na ay ay perspective bilan bi ak li ñu jot benn bi rek doyoon na benn bi xet ci dëgg parce que yàlla rek moo xam waaye am na ñoo xam ne ñun gisut woon mën nañ ca jaare sax dee yàlla dina àgg dina ci métti foo xam ne mën na ko rek ñu jaaxle rek mën na ko ci dëkk ci am ma génne dem jaar ci yoon yi di dem rek problème bu ngeen ko defee ba mat trois cent personnes xam nga du dix personnes bu doon ubbi sa bët xool donc trois cent personnes day day day bari loolu dara xam nga rek yéene ji rek laytaay kon li ngeen def am nañu li ngeen koy defalee xam ngeen bu fekkoon ne bu leen neexoon def nañ yëpp sol seen tenue teg fële tenue ba sol seen buubu nekk gan tegal say tànk tuur tuur laa waaw xew lu ko màggal gi yàlla nañu waaye da ngeen di ñëw nekk ay soldaar yi Sëñ Tuubaa liggéey Sëñ Tuubaa ngeen liggéeyal ko nag ci seen domaine bi ngeen mën bari na ko bari fi ci mbedd mi la def xamu ñu dara kenn def lu bon du doome na wi waaye ma nga cay jéem waaye bu demoon ci lam man lay dàqal sëriñ bi di ngeen a ñëw ci li ngeen man ngeen ngeen liggéey ci sëriñ ak ngeen ci dajeeg moom ngeen ci ngërëm man mu leen di sant sama sant ñu yàlla dogal ngeen wàcc ci man yëf yi tàmbalee ci ñun jaaree ci jëwriñ saytaane ak si ñi fi nekk it wax ne ñoo ko gën a bëgg ndax moom ko fu rëy waaye bëgg nañ ko na mu ko kon daal ñu ngi feneen man am na ay waxtu xam rek ma yàgg fekke lu ndaw tàmbali tàmbali te dëgg laal ko fu mujj bari moo tax mu ne ñu koy xool fu kawe gis nuñ koy def ak fuñ ñoom seen kër fii seen doom kër gii nii sëriñ Tuubaa laa ko tabaxal man su tooñ nii ne man fii du sama dëkk baax na Daaru Karim laa dëkk waaye fii sëriñ Tuubaa laa ko defal moo tax nit ñu tabaxal ko nii ngir ñëpp mën naa fay mën naa fay nit ñu baree bari bopp nga fii li fi nekk ci ay di bari nañ ñu bari jógee jëm si ci yow yow da nga yaatal loolu daal ci loolu laa yaatale daal ba laa bëgg a yaatale daal ba sax ñu am clinique fii man la mu si waaye fii ci bunt yàlla mën na ko yàlla moom lépp lu baax rek boo ko bëggee ñaan ko ndax moo am lépp kon it dama leen waxoon rek yàlla na man la mu si waaye dem ba nekk ONG bu mag ci adduna bi ba ci seen yeneen ONG magi mag yëpp ko lu mel ne Croix Rouge ay ñaari nit rek ko taxawaloon te gis ngeen ñu agsi kon nag nañ demee yàlla na leen yàlla yóbbu fu raw foofu kër gën a pas-pas gënul pas-pas pas-pas rek gënul pas-pas pas-pas pas-pas la rek doole nag mooy ëppalante xelit mooy mooy ëppalante nit yi dañuy rawal ci experience waaye pass pass bu nekk dëgg benn gënu ci sama kon pass pas bi ngeen am moom la ñooñu am rek ñeneen ñi tamit ñu développé seeni affaire ba mu kawee tamit pass pass bi ngeen am rek la am kon yàlla na leen yàlla gën a dëgëral seen pass pass jox leen moyen yi jox leen kàttan bi ñu nit ñu boole suñuy force comme ñu leen waxoon daaw yaatal ko man yaatal naa ci bu baax a baax man gërëm amaguma ay réponse nag waaye def nañ ci ay jéego bu baax adduna noonu lay def def ndànk ñu dajale yëpp man li ma def lépp it man dama bokk dama jàpp ne ci biir mbooloo mi laa bokk am nañ ci ay promesse am nañ ci ay ñu ci gisanteel rendre naa ci compte mel ne day asu yu bëree moom mi nga xam ne mooy ci wàllu boobu waaye daal boobu daal du weesu ko bu ñu amoon leneen luy sant dañ leen koy def waaye ñu leen mën a def daal mu te weesu sant leen ci turu sëriñ bi ci boppam borom dëkk bi li nga xam ne lu fi waaye def moom nga ko defal xam ne maa jëw nañu doo nga yëf yi te te yëf yi jaare ci man yëf yi yéen tàmbalee ba am nañ ci ay relation yoo xam ne weesu woon na li ko laloon sax ndax ñun ñii ñëpp nañ ci xamante yow mii ngay sama noonu nit ñu seq ñu en dehors de ça ñu waxante leneen bopp leneen ñu wax di yeneen te lii rek moo ko lal man daan nañu bari ci fii kon daan gën a yaatu ci ñëpp ñun ñëpp ñu bokk loo muy sëriñ bokk fii tamit te fii dama jàpp naa ne daal. li ma jàpp rek la li ma sentir la ngeen sentir yéen ñëpp mooy fii seen kër yi xam naa ne ci ñu bari ñuy nekk fii màggal si su dul woon tamit affaire faj ak leneen bu ñu doon ñëw ci dëkk bi tamit ci màggal si fii la ñuy def doxal naa ci jigéen na tamit liggéey ci projet bi ko def ngir yàlla gën a yaatal lépp gën a tàllal suñu loxo ñu suñuy partenaire fu mu fi mën a doon ci biir réew mi ak bitim réew ku mën a ñëw di jàppale ñu ngir yàlla ngir humanité ngir sëriñ bi jërë ngeen jëf yàlla yàlla dëgëral leen yàlla may leen doole ñu ngi àggale ngeen mana kayak si seen njàng mana mën si yore si niker, ada i kër ba développe li ngeen bëgg a def nañuy ñaan bu baax yàlla suñu borom yàlla lu ko waaye ñaan mën na la ko may en tout mbir mi duñ caaxaan duñ caaxaan duñ caaxaan ku nekk daal domaine bi nga nekk nga defal ko nii Sénégal dafa amoon période yu grippe moom daal di bàyyi. man hmm, de yàlla dafa def nawet gis na ma ko fekk vingt quatre ans. waaw tey no décembre ba mois de mois d' avril laa fi nekk. dafa màggal suñu biir màggal ci biir liggéey la rek waaye màggal bi mënoo ko dee అప్పుడు ఇలానే చేయండి చదువుకోండి Sentese. Uau! Bacana. nome do paciente? nome do paciente. Patologia interna A tranche das boas. Mhm. après TDR bi lañ lay jox. kese TDR bi ci jokkoo sax ñu ci doon jokkoo ak médecin chef centre de santé kër gi pour ñu euh, prochaine fois avant màggal bi ñu amal ñoom ay ndaje pour ñu xa pour ñu identifier cek bi pour mën leen fournir yenn matériel bi ak ak wér jox naa ko numéro médecin bi am naa dina leen ci jokkoo incha allah créé ay plateforme yoo xam ne avant Magal dinañ mën a def ay. voluntária da minha saúde, com muita credibilidade. docteur Fall moom pharmacien pharmacien journaliste. <laughs> Ah, ah, lu bëree bëri daal li ma ci jàngale mooy gëm moom am benn def ko ci ak lépp defar ko rek laa gëm moom moo tax ma eh, moo ñu ñetteel noonu mu saa yi dañuy yokk. ñu ñu ji kat tey suba bi ñuy ndékki ji di ndékki rek ñoo ko soxla moom wax léegi nga xam ne waxee te loolu yëpp bàyyi ko sëriñ bi நின்றுட்டாங்க dina ci jàngaale dina ci jàngaale bu baax te ne mbir yi moom nànk nànk moom koy def ñu faj sax nànk nit bu ñu la nga fekk ne li muy leneen li ma ci jàngaat ñu bëggante gi ngeen bëggante seen biir jërëjëf kon ba déwén ñu yàlla bàyyi fi. dara dal sàmm ñu aar ñu ba déwén na ci jàmm.